parce que temps bi mu ma jëlal dafa metti te xaw ma woon ne aussi que nii lay demee parce que vraiment imaginez depuis un an ngi nii chaque jour je me couche à cinq heures du matin te dootuma xale léegi da léeg-léeg may jug sax bëgg a sekki tàng benn yax ne kërëj ma ne eh léegi dootuñu ko ne su ma ko bëggee boole nag ak euh, tournage di visionner euh, ñetti studio yëpp tout le temps c'est bonde de monde ah ba daf ma sonal moo tax ma ne bu démb doon tey du ma ko def su ma xamoon ne nii lay demee duma ci dugg déggoo li ma la wax man dama topp sama yéene rek acca ku mën a way nañoo way acca nangam nangam nangam dem nañ ba fi mu nekk nii fii Euh, su ma juumul li manqué cinq cent voix yi yi ñu posé fii à Dakar tuuti la c'est beaucoup cinq cent voix yoo xam ne posé nañu ko ba pare soo compté cinq cent fois trois ci version classique te dañuy woy classique bu pare dem woy ko en version salsa boo compté maanaam cinq cent fois six c'est beaucoup j'ai pas le choix léeg-léeg ma tourné léeg-léeg ma tourné ba yàgg ba commencé miir ma ne caméraman bi may ma ma def benn pose def benn break bon naan garab xaar tuuti nangam après ba ko le vin est tiré kay il faut le boire xas naa ko sommi ba pare mootuma euh, def retour en zone ne ko ñu ne ñaw dafa sob wala lii wala mënu ko nangam na bon dinaa dem daal ba jeex voilà àllarba yi pour le moment nii ñi nga xam ne seen clip ñoo pare 19 la ñu wala 17 mais am na ñuy tourné suba am na ñuy tourné ginnaaw suba bon comme mënuñu xaar ñëpp sinon dafay jël du temps ñi pare gom la ñuy dugal le temps que ñee di tourné moo tax ñu def ko première partie ak deuxième partie bon état du Sénégal moom à diir dire appuyé guñu ma mais d'après li ma waxante ak président Macky Sall le protecteur des arts des lettres et des artistes moom kontaan na ci projet bi lu mu ma wax la sama nopp ma dégg am na fierte bu rëy que projet bi jóge ci un sénégalais mu nekk made in Sénégal te gouvernement am dina ci jàpp lii moom wax na ma ko sama nopp ma dégg te gëm naa ko man maa mbalaxal sama xel ma daa koy tuddee la CEDEAO en cœur parce que kër bi mooy du defaru xol non woy la waxandoo waaw bon eh, eh, ba jàng naa école nag xam naa tuuti ayuma lool lool lool waaye nag eh, maa ngi nafar de dijj marine rek donc moo tax man la bu démb doon tey du ko def bu fekkee ne maa ngi nekk ci sama dernier virage ma bëgg defe ko noo xam ne ah, dinaa fi bàyyi dara ma ne xaaral ma woyloo mais confrères africains comme awma segam déjà bu Afrique bi rek mu mu dafa diis te metti du ma jéem a songu l'Europe bien que xam na ay musiciens en Europe te pourtant am na ñoo xam ne bokkuñu pays ba ba ba CEDEAO mais ñëw nañu woy nañu ah, am na benn espagnol bu bu bu tudd Julia bu jógee dëkkam ñëw woy am na ñaari italien yu ñëw woy man maa bind ku ci nekk li ma bind moom ngay woy exemple bi bi ma demee au Mali li ma bind rek la maliens yi traduire ñoom ci seen langue ñoo bokk li ñuy wax mais man français lay wax moom li may tontu mooy li ma bind mais moom dafa koy woy en lang malienne parce que euh, wolof bi génnul fii fii rek la yem te projet bu mel noonu il faut que nga woy ko ci langue boo xam ne au moins mooy romb fii j'étais obligé ma def ko en français waaw léegi ñu ne pourquoi ba ba CEDEAO bi xam nga benn déjà on disait que la mbalax était inexportable loolu yéen ñi bind ngeen ko ba te tegu leen ko fenn nag man j'ai voulu aussi prouver le contraire ñi woy ñëpp ci mbalax bi lañ ko woy italiens yeeg espagnols yeeg ñëpp. donc mbalax peut être exporté waaye seulement musique mbalax gis nga musique soo bëggee mu avancé da nga koy soutenir dafa am volonté politique boo xam ne moo manqué ci affaire musique bu Sénégal Nigéria dàquñu ñu musique mais la musique est soutenue ay milliards la ci gars yi def ay milliards la ci gars yi def la musique est bel et bien soutenue moo tax mais ñu nekk ci kaw mais su fekkoon ne que le mbalax était bien bien bien soutenu non di romb nañu fii bu yàgg parce que da concert boo dem en Europe da ngay gis ay tubaab bi ban temps la ñuy feccee mbalax bi et dañ koy fecc nicement benn ñaar waaw mu ñett ba nga jàpp yow yow wax ñeenteel bi xam nga ban la ñu xam ne maa way <laughs> maa la thème bi yëpp ñetti composition la l'artiste may tagg l'artiste bi bi ma doon ak bi keneen doon moo tax toujours su ma si clip bi may wax naan je suis un artiste mu ngi ci YouTube bi boo tapee Balago TV dangay dégg tout ah man artiste la non waxuma ci woy bi ne ah, kenn jox ko gëddam nee na mais dama xam ne euh, ko wax naa ko ci biir woy bi comment serait ce monde sans disco reggae pachanga rhythm and blues folklore flamenco le jazz la samba loolu rek ëmb na lépp bu fi musique amul woon ngeen gën a sonn am de ba mën naa wax mbalax mais comme man déjà man maa ngi def mbalax bàyyi ma lim ak beneen musique comme ça mu mu xaw euh, moom mooy gën mais su fekkee ne mba mbalax laa wax. benn bi mu ngi tudd les rapaces il fallait que ñu joxe benn woy ci YouTube bi ñu daal di saraxe artiste mu des les rapaas ak way bi tudd tu seras trois chansons yooyu way nañ ko ci langue bu ne par rapport ak ñi fi jaaragum te buñ la tegalee version lingala bi nga ne bii moo dàq buñ la tegalee version jaaxanke bi nga ne bii tam neex na buñ la teg bu la dàqal ah, moom nee na version malienne yi moom moo ko dàqal voilà léegi nag. loolu mooy charme projet bi te pourtant même paroles yi la même musique bi mais yow ni nga ko woyee ak ni ko kii woyee bokkul parce que ku nekk nag am nga loo xam ne yàlla moo la moom moo ko def ci yow yàlla moo la ko may mënoo ko tricher mën kenn mënu ko nangu ci yow mooy sa style bi ngay woyee loolu bokk na ci li li neexal charme projet bi mën nga teg cinq versions nii ñëpp même thème la ñuy wax mais kenn bokkul ak sa morom ni mu ko woyee jàmmi Casamance day ñun ñëpp moom moom la ñuy ñaan ñëpp mais su ma sañoon nag jàmm am te xam naa ne yéen ñi tam bu bu ngeen sañoon jàmm am mais xam nga boobu tam euh, ak culture tout est possible tout est possible xaw ma nag euh, ndax ah yàlla mën na fi jaare sax on ne sait jamais parce que ñoom. am na façon bu ñu ko jëlee ñoom les artistes ba Casase nee nañ ma li ma def nii am na fu mu leen àgg ñoom parce que ñu ne kenn mos boole ci dara ma ne d'accord mu ne yow yaay premier artist bu am dimension bi nga am nga ubbi sa projet boole ci ay chanteur casacé personne ne l'a jamais fait moo tax ñoom mu am fu mu leen àgg dégg naa ne ndeysaan kenn ci ñoom mu ne il faut un milliard de vues pour la Casamance ñoom ñu ne dañuy jéem a ñaax seen mbokk yi pour que na Casamance am un milliard de vues mu nekk loo xam ne c'est du jamais vu au Sénégal man leen ah, ah doom yàlla seen gémmiñ ambarke un milliard de bii moom bu bu bu buñ ko amee moom ba yaakaar naa ne ku ne di nga seeñu ah.